population de Fatick euh, maa ngi am mbégte daje ak artisan yi tey fii ci mairie bu Fatick ci turu Cheikh Ahmadou Bamba Sarr nekk daaju ministère de l'artisanat mais nekk également un responsable politique à Fatick ma teewal ko fi tey wutu ko ci ndimbal bi nga xam ne dafa doon matériel bu ñu jagleel artisan wu Fatick Cheikh Ahmadou Bamba Sarr bëggoon na teewal boppam mais am empêchement mu désigné ma ak l'ensemble de son staff pour ñu jël euh, matériel bi nga xam ne matériel bu am solo la jébbal ko les artisans de su suñu waxee nag ci Cheikh Ahmadou Bamba Sarr wax artisan wu Fatick du ne guléet du seen première rencontre defe naa tey jii su ma juumul mun na doon ñett wala ñeenteeli rencontre boo xam ne Cheikh Ahmadou Bamba li ko yàlla wërsëgal da koy jël bokk ko ak askanu Fatick gannaaw bi nga xamee ne sungu nañ politique bi te mu doon acteur politique bu ñëpp xam mu ànd ci ak les artisans yàlla may ñu ndam la nga xam ne yéene woon na leen ko bëggoon leen ko jox bu yàgg tey la ko yàlla dogal loolu moo tax matériel bii ngeen gis fii nii tey nga xam ne artisans yi mën nañ ko jëriñoo ñi nga xam ne mécaniciens yi ñi nga xam ne ay tailleur lañ ñi nga xam ne ñooy les femmes coiffeuses ñii di les restauratrices les femmes transformatrices les électriciens boo xoolee corps de métier bu nekk rek laal na la am ci loo xam ne jël na ko indil la ko jagleel la ko te dañu wax ne euh, artisanat secteur la bu jar jàppale la parce que secteur la bu ëpp ñiy yëngu ci Sénégal ci la ñu nekk waaye secteur la boo xam ne tey boo koy ma ci en termes de création d'entreprise le secteur de l'artisanat moo jël paie ñooñu nag gannaaw bañ leen capacité ba pare tey Cheikh ahmadu Bamba Sarr daaju ministère de l'artisanat responsable politique à Fatick moo ma yónnee woon ak estafam pour ñu jébbal leen lii nga xam ne mooy matériel bi te di leen ñaanal ngeen def ci bon usage te lépp lu ngeen ci yëngu yàlla def ko mu barkee di am tey mbégte ci teewaay bi ñu teew fii nii ci loo xamante ni bii nii kii de la daaj Bamba Sarr jóg na tey di ko jëflante ak artisan yi mu nekk loo xamante ni également comme ni ko la chef de cabinet waxee nekkul guléet ci loo xamante ni bii nii luy jëflante ak ñoom la kon dan naan daaj Bamba Sarr moom il a très tôt compris dès l'instant que le président de la république jël na le secteur de l'artisanat beral ko benn ministère plein moom il a très tôt compris du jóg di accompagner ñi nga xam ne mooy les artisans parce que bu ñu xoolee tey jii li waral lii juste avant les élections jël na les femmes transformatrices dafa leen ay session de formation macha allah ñu pare encore mu accompagner leen tey jii nii dafa ñëw ni ma matériel bi mënuma koo joxe il faut ma xaar ba artisan yëpp man cee man cee bénéficier wu ma soo ko def une pierre deux su ko defee artisan yëpp man cee jot kon loolu dama naan kii xam ne li nga xamante ni moom la président de soxla ci secteur de l' artisanat parce que xam na ni c' est le moteur du développement kon le DAGE moom duñ def vraiment lu di ko ñaanal ci bi nga xam ne la nekk parce que danaan lii mooy créer emploi lii aussi mooy tax nit ñi am seen autonomie parce que li ngay ñëw à chaque fois di may nit ñi ay xaalis jox leen ay jumtuwaay yoo xam dina ko liggéeyee ba nga xamante ni bii nii kenn dootul soxla di ñaan kenn ku ci nekk di nga mën a am loo soxla ba mën a am mañ ko faj je pense que loolu moom mooy li nga xamante ni bii mooy indi développement kon encore une fois dañuy remercier waat DAGE te di ko ñaanal lu mu ñu mën ren bu déwénee yàlla mën lu ko